soo bëggee seetaan épisode bi ci topp cliquer fii. bu ngeen bëggee seetaan épisode bi ci topp cliquer fii. asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àddina asalaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen a safoo seetaan Pikini Production nuyu naa leen ziar naa leen. naa leen Pikini production dafa ñëw ak yéen tey ci lu bees tak tak tak tak tak muy Oser the Stream ngeen naa leen xaar famille sénégalaise ba sonn jeex na fi naan famille sénégalaise kañ lay dugg famille sénégalaise dafa yeex a dugg jeex na fi balaa moo daw wut ci wala muy daw télé day daw ci application bi un ba huitième épisode fi nga xam ne ni moo ngi ci application bi daw leen ngeen seetaani ko chaque jour yéen a ngi seetaan li nga xam ne moom moo di Netflix gis naa li nga xam ne moom moo di canal ak yeneen application te pourtant da ngeen di fay te li ngeen di fay foofu moo gën a cher fuuf li ngeen di fay fii nga xam ne nii moom di ci application bi moo xam ne ngeen di fay cent franc dong ngeen di fay cent franc kese ngeen di fay ngeen seetaan famille sénégalaise à temps te kenn kenn kenn du leen sonal kon nag gaaw leen ngeen daw fi fi nga di application bi ngeen dem seetaane famille sénégalaise boo leen fayee cent franc di ngeen ma jàppale man mi nga xam ne moom maa di artiste bi di ngeen jàppale ki nga xam ne moom di producteur bi tamit di ngeen li nga di cinéma sénégalais daw télécharge application bi ngeen sétane femme sénégalaise da ngeen ko application bi Stream Yen la fi nekkal application baa ngi ci da ngeen cliquer directement mu yóbbu leen foofu ngeen def saani femme waaye mi nit la. yow yaa gën xam ne Ndéla du nit. Ndéla dëmm la fu ma dem fekk ko fa lu ma def mu yàqu ko te yow xam nga ne dof la feneen mu taxaw dafa mu mètre tant que heure suli bi jotul. nee naa la Penda moo nekk ci ginnaaw Penda Wurus di ko def comme courtier lu mu ko def loo mu def loo nga. Penda xam naa ko gis nga bii yoon moom. est-ce que duma ko fekk foofu tàppaas ko. loolu day xam nga lan mooy wax ci bu ñu ko sulee naka la ñuy def. nañ leen jiitu ci nopp mère bi. ñu la jiitoo sama yaay doo am moo boo wax boo waxee kenn du la déglu. Penda Ndella lan la defati. am na loo xam ne waxuma la ba tey. loolu lu mu. lii ñu suul ci kër gii xam naa ki ko fi suul. kan moo ko fi suul Penda. Ndeela ci boppam moo ko fa sama mos. Ma aku gis. Penda man lay sosal. <laughs> oo leen ko mu ñëw mu toog fii lépp leer. est-ce que duñu woon Ndeela mu ñëw toog comme ça mu wax yow ya nga wax xam fan la dëgg gi pour la ngeen di woo xale bu ndaw may téesante ak moom su ngeen ma mënul gëm moom loolu mënuma ci dara. Tu guerre ngeen bëgg guerre bu gën a tar bi te moom ngeen di ut di ngeen ko am ba mu neex nañ ci dem Mandela Fall guerre rek lay def ak noppal ko soo bëggee saan bi stop kii di Fii